tomb bi oustaz wara waxtane di taxawayu jigen ci njabotam taxawayu jigen ci famem tomb bobu mom xamna buñ fi massa waxtane amna solo waaye biitim dara eppatu ko solo ndax jigen da am rôle bu mu wara fuyé ci njabotam te da melni liñ ko koy bari wut dañ koy yar ba mag rek ñu duggal ko ci kër mu am njabot daan xol na mag di def mu koy def leg leg man na bax leg leg man na bon kon toog léeg-léeg waxtaane ko itam farata la ndax ki bëgg njaboot ki nekk njabootam yëg ba xam li may def sama borom kër laa ko defal wala sama bopp laa koy defal wala société bi laa ko defal wala njaboot gi laa ko defal su ma ko defalee ñooñu ñëpp ba noppi kan moo may fay ndax yàllaa may fay wala pénc mi ñoo may tagg wala damay am doom mu teral ma ëllëg balaa nit a xàmmee yooyu faaw ñu waxtaan ak moom ci rôle bi nga xamante ne moo koy war ci biir njabootam ak importance bi nga xam ne moom la am ngir mu man cee góorgóorlu te yonente bi alayhi salaatu ba muy génn àdduna jigéen ñi la dénkaane woon wala boog jigéen ñi bokkoon nañ ci ñi mujje dénkaane kon waxtaane ñoom seen taxawaay ci société bi am na solo lool te lislaam desalu leen ginnaaw kon ñu ànd soobu ci ñun ñëpp rek déglu Oustaz Alioune Sall ñaan suñ borom mu dëgëral ko ubbil ko dënnam feccil ko làmmiñam balim li lépp suñ borom may ko katan gum ko joxe te boole ñut ñi nga xamné ne al khawla fayattabihuna ahsana ustaas tafadal maskuran fa jasakallahu xayran rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa yàlla na nu yàlla may dund gu barkeel yàlla na nu bokk fekki déwén toogoon nañ fi daaw ak daaw jéeg at mu ñu toogee rekk ñaan yàlla fekki déwén yàlla baaxe nañu ba ñi ëpp ci ñun fekke nañu ren yàlla ñu fekki déwén ñi ko fekk woon daaw te wóote ko ren ña ci tukki yàlla nañ ñibbisi ci jàmm ña ca feebar yàlla yàlla saafara leen ña ca faatu yàlla na yàlla yërëm leen maa ngi mbégte lool toogaat ci tànt bi ndokkeel ñi ma bokkal tribune bi waye ndokkel ñi sama kanam ci jor tay aw jigen ci sama chamante aw jigen ay ndokkel tribune bële nga xamne ci la seigne Ablaye sek tok ak ñam fa togal waxna ko daw ne ko fek kon rew mi da melni ni Afghanistan kenn du yëkkati qasida di jël kalando parce que lool c'est pas normal waye rew mi melut ni Afghanistan ku don dawal auto dab ku yëkkati xasaayit sax dang ko yëkkati loxo rek daal ni diw la rombu nonu waye nak amna lu ne ci kanam lo xamne ne bu ñëwee ku leen jàppale wutoon leen ñé ngeen xam lolu yalla na ngeen ni mën ci xasida yi sunu mag ñi ndax ñi ndagar ay kaat-kaat la war ñii taasu ñu ngi wari Mercedes waaw yàlla nu yàlla yërëm mooy fête des mères nit ñaa ngi wax seen yaay yi merci maman ñee naan seen yaay maman je t'aime ku ne yaa ngay taalifal sa yaay loo jàpp ne boo ko taalifalee xolam sedd bu ñu ñëwee nag tey woor nangami fan bëgg a waxtaane jigéen ak taxawaayam ci kër gi du hasard yàlla du def hasard nit ñoo koy def jaar fenn ne su ma yëgoon du fi jaar loolu nit lay dal waaye du dal yàlla maa ngi am mbégte ci alxuraan ji jàng yéen soxna yi bi may tàmbali ci njiital ustaas ak ustaasa ustaas bu góor beeg bu jigéen bi xam naa su ma ñibbee téléphoné Nogay waxtaan ak moom ci dugal ko ci mbooloo mi ndax yéen a ko raw kon waxtaane position bi jigéen am ci al usra jar na di waxtaane saa su nekk waaye rawatina bi ñu nekkee ci vingtième siècle jëm vingt et di waxtaaneen jigéen ci wàccuwaayam ndax koom la moo xam ne penc mu ko am boo ko xamee raw sa moromi penc waye kom la mo xane boko xasse am boko rere sa morum penc raw la xale yi organiser bal ñom xam nañ li leen jigen meuna andil motax duñ ko laaj pass femme libre rek lañ wax homme 4000 femme libre waaye liberté ak femme moomu ak bëggal ko lu baax taxut dañoo xam lim leen mën a indil rek moo tax bu ñuy def seen yooyu daal ne jigéen du fay dara ndax am na góor ñoo xam ne bu ñu fa rombee seenu jigéen ca lañu nangoo dugg sëñ bi maa lay ziar bu baax a baax kon ñoo ngi dalal sëriñ baax a baax barkal kon jigéen xale yi baal xam nañ lim leen mën a indil bu ñuy tàmbali ne ko doo fay dara ne góor nag yow 3000 ngay fay wala 4000 waaw homme 4000 femme libre sëñ Mbàkke bi yàlla bindee àdduna bind ku ñuy wax aadama yàlla daa xam ne lim fiy deflu góor képp mënu ko mu ne kon na ko booleek jigéen li góor tële lépp mu ko jigéen li jigéen tële lépp mu ko góor mbir mi dox ñoom ñaar bu ñu nekkee ci penc mi bu dee jigéen rekk du dox bu dee góor rekk du dox ñu ne jigéen kaay nga ànd ak góor ngeen dem biir aljanna ngeen jàngi nu ngeen di gérer àdduna yàlla yi def ci leeral bu am solo ci saar wu ñuy wax alxujuraat mu ne ñu yaayoo naasu innaa xalaqnaakum min dakarin wa unsa yéen nit ñi dama leen bind ci baay ak ndey dama leen bind ci baay ak ndey ndey mooy jigéen ndey mooy jigéen إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا آه. ما داف لين كوني سياي ام نيت سباي ام نيت با آه. نيغو نداي اك نيغو باي متاخ كرب يونت بي جاخلي سي طائف kër neeg ndeyam la demoon malheureusement ñooñu gën a rakkaaju ñépp sànni koy birib yuuxoo ko sadd ko ay xeer génne daratam waaye comme moom du fayu mu fopp daratam rekk ñibbi a jooju sëñ Mbàkke bu ñu ci déparé dañu gis ne kon foyer bi pour mu taxaw dafa am min dakarin wa unsa li feeg déggoo jëkkër ak jabar foyer taxawagul day am jigéen ci kër gi ak jabar jëkkër ci kër gi affaire bi door a taxaw bu amut dara taxawagul birig birig yee ngeen seen fi ne ay birig dong lañ tudd bala ñoo doon dara dañ leen a taqale jigéen nit ak góor seeni taas ci àdduna fu mu booloo rekk am lu feeñ bu ñu ko xàjjalee nag bu ko nekk demee néew doole moo tax ñoom ñaar ñu bëgg ñu boole seen doole jigéen ci famille bi it bu amul jëkkër du fondement famille ah ñëw ci bindi ci kanam waaye ci tàmbali lañ koy xamal ne ko ah jigéen nga nag ci tàmbali bi daal la soxna sa waxoon ba mu amee doom ji tudd Mariama mu tudd ko ba noppi walla mu am ko ba noppi daal ne walaysa dakaru kal unsa waaw addunaa ngi dox nag di dem ba tâche yooyu may bëgg a wax tem doon xaar jigéen ñu défiye ko yóbbu ko ci yeneen taas léeg-léeg mu doxal yooyu ba jóge fii dem sunu borom ne ko loo ko doon def lay wëréer ko yàlla tere mbake taas wi xaar jigéen ci biir foyer danaa la ci limal juróom-ñett juróom-ñett yoo xam ne jigéen ju dugg néegu sëy mi ngi lay xaar boo ko defee ak jaamu yàlla la ci yow boo ci esegee mën na laa jural yeneen gis nga sëñ Mbàkke jigéen ñaari saa boo ko séenee mujjug jamonoom mu tumuranke première jamonoom daa bàyyiwutoon xel loolu boroom xasida ga nee na fa kullu man baadara waxta sigari ilal huda staraaxa waxtal kibari ku teel a jóg rekk teel a noppalu li muy tekki mooy ku yéex a jóg yéex a noppalu mbaa doon noppalu kon nag jigéen dañ koy xamal ne ah jigéen nga nangu la doon jigéen waaye àddunaa ngi dox naan jigéen ah jigéen nga mee nag ñaari loxo loxoy takk tubéy ñaar loxoy takk sér 2012 wala lu ko jege amoon nañ ci loi bu tuddoo parité coow la ne kurr ba démb waaw coow la kurr ba démb buñ la ko firilee moy nayam ca politique ba buñ la ko firilut moy na dugg ba ci kër yi ndax looy tubaab nun la moog lasper ñoyam loi looy tubaab moog lasper ñoyam lasper bo defé ni fi lay yam bo defé ni fi lay yam bo defé ni fi lay yam lasper da nga ñoo rek xam li nga bëgg lu mu doon tubaab nak nun la mel defe naa léebaloon naa leen ba bukki gisee bëy wa ne ko dama laa bëgg a lekk ne ko nag yaa ma saaga woon bàyyi mu ne ko man mu ne ko yow mi yaa ma saaga woon bàyyi kañ laa la saaga mu ne ko 2000 mu ne ko 2000 fekkul ma judd 2000 fekku ma fi ba ma lay saaga mu ne kon sa papa la mu ne ko sama papa judduwul 2000 waaw bi moom penalty la bàyyi ko fii njawa ah coups yi ngeen foofu waaw penalti yi fii coups yi ñu teg ko fee ak corner yi eh, kon tas bi njëkk war jigéen mbàkke mooy dafa am lu yàlla séentu ci góor mooy daf ko wax ne arijaalu xawaamuuna alal nisaa xawaama googu lañu séentu ci jigéen mu def ko ci góor ba góor mën a taxawee xawaama googu mooy bu amee jëkkër yàllaa la sant ci jëkkër ji nga yëkkati niveau am ba ci niveau jëkkër yi waaw boo amee jëkkër nga yëkkati niveau am ba mu tolloog niveau jëkkër yi waaw loolu taas la bu buñ sant jigéen moo tax dangay gis ne jigéen léeg-léeg ci ñi xam dara bu doom ji tooñaa ñu ne ko damay xaar ba sa papa ñëw ko defee doom ji ne ah kon keur gi am na chef chef bi moy sama papa bu papa ji comprendre bu ñewé mu ne ko de tay dafa def nangam ndanga wan mor deug ci yaayam waye mu ñew nga ne de tay wóorul nga ne koy soofal ne mor wor nga wor waye moor day am fit ci kanam yaayam comme si yaayam dalaa kalaame rek defal lu tiitloo moor ba moor yëg ne ah kon kër gi am na chef chef googu laa ne lañ yëkk séentu ci jigéen mu di yëkkati niveau ba mu toll ci niveau jëkkër yi ka daan way faatu gay ka daan woy Fatou Gaye Alaaji Gaye nee na góor montor la jigéen ay orloo seem am déet loolu la waxoon ci way wa de mu ne faatu faatu avancé na ma ba may defantee ki nawle c'est-à-dire bokk na léegi ci ñu am heure waaw mu ne faatu da ko avancé ba mu jëfalantee ki nawle luy nawle mooy ñi am heure ca la bokk léegi lu am solo la wayu faatu gay woowu ndeysaan xewi na boo ko masaan tegal ñoom njawa ñu génn seen rongañ mais léegi kinjim kinjim yi yàq na xasiida yi yàlla nu yàlla yërëm kon loolu lu ñu séentu ci jigéen la moo tax bu sëy jotee nga gis ñuy tànn ku man loolu jabar dañ koy tànn ci kaw mu man li muy def si ndax nun la penc mi def léegi déedéet penc mi léegi ki ñuy tànn du ko man liñ koy defloo si dañuy tànn une belle femme avec des no et cheveux naturels aidé aidé aidé ndekk yi ñuy def lu baxal nen képp la ci man lu am solo la nga fekk nit nit ñu may la ko comme jabar mu doon sa jëkkër nga tàmbali liggéey ci lu yëkkati niveau jox ko sag bi yëpp jox ko saag bi yëpp jébbal ko lépp ne tekk nag ànd ak moom wax wax la dem ci conférence bi suñu yaay Khadija yunus ibda khay xëy liggéeyal ko ah gont denc ko da khay deñ liggéeyal ko gont denc ko mu xëy ci ëlëk sa jébbal ko léppam ne ko duutuma moom ñu may moom duutuma moom ñu may moom dama bëgg nga boole maag li ma moom moom suñ ndey xadija yal na ko yàlla fayal bu am solo mu noonu te mooy fexe ba sa jëkkër mat jëkkër benn bés kenn ca saaba ya jaabir ibn abdullah dafa ñëw ci mbooloo mi yonent bi gis ni muy waaxoo ak ni mu solo mu ñëw jël place toog yonent bi xool ko ne ko jaabir xanaa dangaa ngaa takk jabar loolu la ko yonent bi laaj sa waaxum fulla mii sa col gu sérieux gii sa yu set yii jaabir xanaa da takk jabar mbàkke lu xamal yonent bi nag ko takk jabar nun lay mel ah docteur jaabir ne ko waaw damaa takk jabar mu ne ko ah yaakaar naa ko de mu ne ko looloo ko xamal mu ne ko changement yi ma gis ci yow moom ma ko xamal waaw mbàkke gis nga góor ma xamal la ko tey góor gu la romb tey dem nii nga séen mu bor loxo yi dox ndànk xamoon lu yorul jabar doon dox nii di def nii mbàkke neel benn ngay dawal oto ci tali góor gu ñeme oto bi ba oto bi di ko reesu takkul jabar waaw góor gu dul dawal oto laaj ko ko kii amul jabar kon jabar mooy def yooyu ci nit jaabir yoon bi ne ko xanaa dangaa takk jabar mu ne ko waaw ku baax ka nag ne ko mbaa gone nga takk loolu la ko laaj mbaa gone nga takk jaabir na ko takkuma gone de jeeg laa takk mu ne ko mënoon ngaa takk gone ngeen di fo moon ngaa takk gone ngeen di fo allahu akbar sëñ Ablaye nee na ndab lu ne am na ko bér wallaay ndeysaan al na ko yàlla yokk wér léegi mu ne ko jeeg laa takk mu ne ko mën ngaa takk gone ngeen di fo mu ne ko sama yaay moo faatu bàyyi fi ay doom yu jigéen ak yu góor yu ndaw ma jàpp ne su ma takkee jeet dana leen mën a óof yu ne ko wax nga dëgg nag boobu moom dëgg la waaw foofu la <laughs> kon wax naa benn tomb ci jigéen li ko war ci pénc mi walla ci kër gi mooy mu fexe ba jëkkëram mat góor yéegal niveau bam toll ci góor ñi loolooy bu njëkk bi yàlla na ko jigéen ñépp man waaw jeex na na ko man su ko manee kër gu nekk ka fa nekk mat léegi tey yi xew ci pénc mi du xew góor ñépp mat góor bok na ci li tax nak mu man ko leg leg moy mu yek ko ndax jigen bu yegge ne jigen la ba nopi yek ne da am lu ko war bu solo bu soxna ci lay tuddu penc mi yep di xaar mu defar lu lay benn bi bu ñaaral bi moy mu am ay dom mu am ay doom moy tax famille am famille monsieur et madame point famille moy monsieur et madame et les enfants les bébés bébé avec S loolu nak sëñ mbacké tas c'est mom taas bii te mooy am ay doom waxoon naa ko de ne leen jigéen ñi léegi ki jaboot ki jaboot mooy ki am ñaari doom ñaari doom rek fi la mbir mi bëgg programme ma yem fa te ma wax na jigéen su bàyyee woon boppam ak yàlla rek mën naa lu gàtt-gàtt mu am juróom-ñett wala mu am fukk ak ñaar waaye fi ne boo ko waxee dana la ëw parce que àdduna si léegi ni muy doxee favorable favorable lut pour jàppale jigéen wala mu bàyyi jigéen mu doon jigéen tey danaa ñëw ci kanam dañuy fexe ba mu yéex sëy bu yéexee say yéex a am doom ku yéex a am doom say organe du nangu ku say organ nangut bu ñu la opéré wul doo am doom te bu ñu la opéré ne la planning familial sinon bu ñëwaatee mën nga cee loro nga ne ko tépp far doxe fa kon jigéen bëgg nañ ci moom mu am ay doom yu bare bare bare bare bari li Europe añaane Afrique léegi waa kay akramakumullah jërëjëf bu ñu fàtte ñaan am ay doom ndax daa bokkoon te la yonent ba bëggoon fa inni mukaasirun bikumul umam takk leen jabar na jonge te ñeme njaboot loo ci jublu Ya mu ne ci yéen laa yaakaare baas ëllëg kon day am ay doom waaye xam ngeen ne nit ñi dañuy wax ne wér gi yaramu jigéen dafa wuuteeg doom lislaam gis ne wér gi yaramu jigéen dafa dëppaloog doom xeeti feebar yi dal léegi kanseru wen yeg yoyu dar war lu ko wen wo ween bebe du ko namp lenen namp ko le jine te ku jine namp say wen lee nga fi lee nga ci jigen nampal lay jeri deug la de dama am cancer nangam mbàkke kanseru wen wa canceru colotrice canceru ah wala ma am fibrom yooyu yoo koy waral Mbàkke ndax xam nga luy fibrom fibrom <laughs> gason la ci biiru jigéen ab gason gason yi ci ci terrain yi gason doo nga lay niru li ko mën a empêcher moom gason boobu yàllaa nga ko def ci góor bu jigéen sëyee tey jël ak ay fibrom du ko yomb bu fekkee du def ay pexe yuy tax matière boobu du àgg fa mu war a àgg moo tax bi planning familial bëree fibrom tàmbalee am ndax jigéen bay bëgg a séq ak jabaram jëkkëram ba noppi ne nag liy tax am doomam nan fexe ba docteur nga nee ci sama ginnaaw <laughs> maa ngi wax ci contrôle am waaw gis nga mbàkke ab sëy war a am ay doom koy dawal taxi da ngaa war di verser am léet nañ dellu ci alxuraan uhilla lakum sëñ bi uhilla lakum laylata siyaami الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم لجتك فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يا nee na bu njëkk ku mas a woor doo أي ay ku ay doo jëlug ay ba yàlla li mu yàgg mu ne mu ne téreetuma ko léegi nag joxe leen ay waaye wabtaxu maa kataballaahu lakum mooy bu ngeen di joxe ayit na ngeen séentu ngénte waaye di joxe kay dul ngénte mukk sëñ Maamun soo seetloo Dakar ngénteel paa daanaka xewi na fi ah bi nee na bëreetul ah. Pabu buy gente, ne waaw degal, ne na nyom ñi du. Boye yee rek ne. Jere jef sing mam. yàlla yale yàggal la fi am solo kon ne jigen fexe ba jëkkëram mat jëkkër ben, waaye na jural bu juree ay dom ñettel ba mu yar len yar bu rafet ndax ressource humaine manam buñ soxlo dara ci nit la ñuy delu buñ delo ci buñ ko fa fekke man ko jël na kay def nangam maçon bi ay ay ay brique lay soxla bu bay def terrasse xamu ko waxati day dale soxla ay birig urdu bu fa fekkut brig urdu mbàkke lum mu fay def dara mu tax ñi dañuy am ay dom yar dom yi nag dom yi xaar mi yar dom yi doom yi di xaar mi ngir bëgg ñu yar seen dom yi moo tax borom def aw fas bu juddoo doxi soxlaam am xar bu juddoo doxi soxlaam waaye nit bu juddoo du judd ca bis ba doxi soxlaam peut-être ca weer wa ca déwén sa lu waral loolu dafa soxla ñu waajal ko mu defal yaay soow moo xam ne bu ko doom ji nampee doon ko bu fa bàyyee soow ma indi beneen soow bu doom ji nampee soow moomee soowum kookee lay doon Mbàkke boo romboon xale léegi xam nga bu ñu daan bu xale daan xeex ni la ñuy def comme kuy box tuy tuy léegi benn xale boxatul fii la ñuy xeexee fii la ñuy xeexee lu tax soowum xar lañ nàmp te xar buy xeex du def nii xar <laughs> day mbëkke rombul booyuy xeex rek nga ba a àtte kurpañ dematul fii rek doom ji meewoog na namp ba geex bu nañ ñu lit daane ndax am xel mu gàtt la nax kon yar doom yi waaye ceey yar doom yi mbakke doom daa soxlawoo soowum yaay xale boobu ngay nàmpal bu nampee sam soow doon la yomb ko bu nampee soowum xar doon ko yomb ko rawatina soow yii na ci dëkk bi nga xam ne xàmmeetuñu ci soow yi jóge ndax usine buy defar soow moom man wóoluwuma ko te xam ngeen ne Dakar fi na am na usine yu defar ay ganaar ganaar goo xam ni ganaar du papaam maa ko gis ganaar goo xam ne ganaar du papaam wala ganaar goo xam ne ganaar du yaayam pëndës lañuy wax de loolu ñuy suyal ganaar yi moom lañ koy suyal ci huit heures bu bu bu bu mu nen ana jëkkëram moo tax ganaar yu ñuy consommer fi ne yaa quelque chose te fi ne Mbàkke ceebu ceebu ganaar fi ne moo gën a yomb Dakar ceebu keccax te ceebu keccax a gën ceebu ganaar ganaar yi nag laa wax waxuma ganaar yi fi nekkoon nag ay 1960 70 80 90 ganaar yi moom <laughs> allahu akbar gis nga Mbàkke ganaaru ganaaru Afrique bu Sénégal daf daan sawar mais ganaari tubaab yii xoolal ma ci gu sawar dañu jël poids ganaar yu jigéen ñi soxlawuñ yu góor yi ndax dañoo diis nii rek bu ñu àgg fee di góor maa leen gis kon doom di li tax yàlla téye ko lu yàgg te doxut mooy daa bëgg mu nàmp soowum yaayam ba màndi cim soow waaye xool yaayam bi muy nàmp ba xàmmee ko ci jigéen ñi ah? ba bu ëllëgee buy dox ci mbedd mi dana xàmmee yaay ak yaay waaye su fekkee xale namput lu doy ndax ko day yomb ah rawatina buñ doxee ci pénc moo xam ne léeg-léeg jabaraankat yi soxla cëri xale yi ñëw ci ne na ko damaa lekk deux cent mu ne nga ne na ko waaw léegi nag damaa bëgg ñëpp ne nii mu ne indil ma cër sàngam ci xale bu mën a gut wax walla xale bu xamagul àdduna nga fekk jenn waaye fay ko yow tam mu dem wutali la xale boobu xale bu mu njëkk a jot rek ne la ma may la tàngal nga ne waaw mu dugal ci oto ba fële mu rendi jël cër ba jox ko ñuy wër rek ba mu yàgg ñu ne gis nañ ko barab sàngam ubbi enquête ubbi enquête foofu tam sëñ Mbàkke da ngay gis jigéen juy sëy ci këram au lieu mu fexe jëkkëram mat jëkkër daf koy joob da koy sëriñtu pour su ko laajee mu jox ko mais laaj la nga jox la amul solo njawa noppalu leen doy na noppalu leen doy na sëkk noppalu leen nag dégg nga tubaarkàlla <laughs> leen waay loolooy ñaar defar sa jëkkër ba mët jëkkër waaye nag mbàkke <laughs> am na jigéen ñoo xam ne jàpp ne sëy moom mooy defare cuuraay rek waaw ñoom pour ñoom sëy moom cuuraay rek dégg naa ci bu tudd nemm li xam naa bu ma ci gën a garaaw moom ah nemm li kat mooy xanaa ku ñu dóor muy bëgg a dee nga ñëw nga ñëw mottali ko am na cuuraay bu ko tudd nemm li léegi ku war a xëy liggéey war a dem fajar jàkka ja war a dem ca askar yaak zikr yaak ñoom seen yooyu nga dem nemmiliku ah waaw yàlla nu yàlla yërëm su ne Aïcha radiyallahu anha yonent bi daa masa aye dinaa fi la dinaa fi la ba su ne Aïcha tuy ca ma ne ko kaay noppalu nag yow yàlla jéggal na la li nga def a gut jéggale li nga def avant ngay doon yonent ñëwal tëdd nag mu ne ko Aïcha loolu la mu yóbbee sama coono bi loolu moo ma defal moo ma yóbbal sama coono bi afala akuna abdan shakura mbàkke bu jigéen defaree jëkkëram ba mat jëkkër day defar doomam ay doomam bañ mati doom day defar ay doomam bañ mati doom doom ji ma doom mooy doom joo xam ne du du lore du na ci pénc miit naan lu ma sama réew di defal day wax man lan laay defal réew mi ah loolu lay wax lan laay defal réew mi looloo gën lu ma réew mi defal jabar ji gën ci jabar yi yow ci jigéen mooy jigéen ji gën ci jigéen ñi defante baaxul ci jigéen jigéen day moytu defante waaw gunóo def nangam ah tey ma wax la la sama am doon dunde loolu jigéen du ko def jigéen day nangu xam li koy xaar juróomeel ba ci femme ci famille bi mooy fexe ba bu jëkkër jàqee mbaa mu jaaxle fekk fi ko mën a dalal jàqare ak jaaxle am de boo jàqee mbaa nga jaaxle danga fi fekk ku mën a dalal ku jaaxle mbaa mu jàq loolu la leen alxuraan santoon sëñ bi waa mu ngoog li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma waaye ñëw na sa jabar damaa def nangam mu ne xamoon nga ko dangay xool bi yàlla yónnee Muhammad ba mu ñëw ci kër gi ne soxnaam dama jommi ay bu doon nogay dana la xas door yuuxu te kat ñëw 3h30 du matin 3 3 bi 30 matin nga nga nga nga tërsi ko sa kër. sa soxna ubbil la bunt bi li nga ko njëkk a wax mooy damaa jommi ay bu doon ka ma xam mu ne la xamoon nga ko tànk day toog mbaa mu joggi jaan baraj baraj yi ba kañ fu ma la fekk ak sa téléphone bi dana la coow ba mu yàgg nag mu door ni wooy sama jëkkër ja jommi na àdduna kër kër ne këpp daawa ba yem fa waye dafa fekk jigen jo xam tasku taskunu ilayha sunu ya khadija dama jommi munako lo wax munako dama jommi mu togal ko bi tok mu tank ndox jox ko mu nan munako yow do jommi yow do jommi xam nga tax do jommi muna ah, ya man jinne yi allahu akbar mi nga moral bi soxna soxna jaba xadija mi ngi yëkkati moralu sunu yónnante ba yow doo jommi yaa man jinne yi te yàlla ku sérieux la du war mook moom ba yónnante bi defarwaat ne ko ak ah, kon kay jommiwu ma donc moral bi delsi na loolu jabar da ko war a man jigéen da ko war a man ci kër gi li taskunu ilayha loolu jigéen dañoo séentu ci moom mu man ko li taskunu ilayha ngir mu dalal ko waaye su fekkee bu jëkkër ñëwee wax la dara nga teg ca lu gën a garaaw la ca tege gisuloo assistante nit ñaa ngi koy am seen bureau yi dama ne am nañu ñu ko ko defoon danañ la jaxase ba nga jaxasoo te jigéen nag war naa mën a nekk assistantu jëkkëram sëñ bi gisuloo góor ñu bari nit ñu yooyee dafa am góor ñu bari ñu ngi yooy ndeysaan yal na yàlla yërëm leen te ngeen baal ma yéen ñi yooy ndogu day jot ndogu <laughs> jaajëf ndogu day jot jabar taaj ndogu jëkkër ji jël kuddu war a dogu waaw du la bàyyi ba nga dog ba pare nga jël genn kuddu rek mu ne la facture courant bi da ñëw na ci ton bu naqari nag ton yu naqar yooyu nga jël nga jël facture bi di xool tey wax gaa yaa xaw naa seer mu ne fa bëcc bu téléphone ba ne bu téléphone bi da ñëw na léegi nga commencé nag appétit bi am na jigéen ñoo xam ne noonu la ñuy def moo tax seen jëkkër yaa ngi yooyo yooy yooy ndeysaan yàlla na yàlla yërëm leen balaa koor gee jeex bu ma tukku leen ba ma wax ñu daanu dangay xam ni ngay doxale ci su fekkee ne jëkkër jaaxle na baa mu jàq ak si wax la li ko dal mbakk juróoma ngoog juróom benneel bi ci jigéen taxawaayam ci famille bi mooy nose kër gi nose kër gi ba doo gis lu désordre walla désordonné li nga waxee de mu nga doo ko gis leen lu ne fi war a teg lay tege loolu jigéen ñi am na ñooñ seenu jot mayetu leen loolu dangay xool seen kudd gu fële seen bokk ba fële seen cin la fële ndax amatuñ jotug nose yëf yi ba ca teg mooy dañu war a nose ba nga xam ne bu jëkkër wàccee bu tegee saagam rek mën a tëdd waaye am na dangay wàcc ba noppi fekk ngegenaay la tege fee leneen ngegenaay la tege fële yaay jubbanti pour tëdd bi ngay jubbanti pour tëdd li nga desoon ci nelaw ne fër am de ba ca tege su fekkee am na luñ la laaj biig am na luñ la laaj biig nga duus duusal joxe woo ko damaa bëgg ak cuub ci korite gi nga ne ko incha allah mu ne waaw ah, man kay damaa bëggoon lu dafa jàmp ndax nangam nga naan xaal ba ginnaaw suba nga wàcc si tëdd xale yi ne ci kër gi du leen téye dañu yuux rek waj waj waj waj waj waj waj waj bu ko defee yow du too nelaw lu tax parce que joxewali la war mais su fekkoon danga nga koo joxe bu xale ne pap yaay ñu mu la leen seen papa day nelaw mais loolu kon lay kañ lay kañ lay jàpp <laughs> ah Mbàkke ginnaaw boo boo defee nii ñu defe la nii boo defee nii du du noonu yow kër gi daa war ne dégg nosewu ñi bëgg a noppalu am fuñ noppaloo ñu bëgg toog waxtaan am fuñ ko defee xale yi bëgg fo am fuñ fooye nu lañ koy nosé nosé ko ba kër gi ndox du fi yàqu lu xasaw du fi nekk lu jagut du fi nekk lu gan warte teg bëtam du ko fi gis lu gan warte teg bëtam du ko fi gis ñu làq gan yiñ ko war a làq yépp loolu daa am solo lool boo gisee alquran di tere añ ba noppi di seeti nit loolu dong nga tax reer ba noppi di seeti nit loolu dang nga tax ak fajaru nit salaasu awraatin salaasu awraatin lakum ahlan wa sahlan dégg nga mbàkke beneen nga bu am solo mooy nose kër gi ba ku bëgg a noppalu mën a noppalu nose kër gi ba ku bëgg a noppalu mën a noppalu waaye kër goo xam ne fu nekk la fay tege bunt yi du bunt yi ubbeekook nangam nangam dañ am suñu benn jànq dama naan ko wax toujours gis nga sa sa téléphone bii nit di fi ñëw sàcc ko mu ne ma sàcc waaye buntu kër bi la bàyyi noonu rek am ku ñëw ubbi seen téléphone mu ne ko coppet ne fees mu ne ma la nga waxoon ma ne ko danaa ko waxaat kër dañ koy nose ba tëj ko nga xam ne ku ñëw da ngay yëglu buñ la ubbi lu doo dugg waaye kër goo xam ne ku neex dugg ku neex génn xale yi bu ñuy génn kenn du yëg ba xam génn na ñoom déet bu ñu ñibbi si noonu fu la xale yi jaaxale rek dana dem leen sori waay pour ñu sori la te nit ñaa ngi rëbb xale yi ndax benn xale bu fekkee day jar vingt milliards benn xale wala cinquante million benn xale ah ku yëbba dañ see xale de réew pri prix xale dafi xaw a te bu xaabakat yi buñ joge ci xale ci jeeg yi lañ jëm ngeen bal ma yeen jeeg je xale <laughs> yi réer ñàkk rek ñu naan jeeg reer ngi te te te ha xawma nak buñ joge ci ci jeeg di fuñ jëm ah <laughs> en tout cas serigne bi bu njëkk kii def ak njabar xam nga lu mu naan laaj ginaar mbaaw bëy mbaam xar muy dem ba léegi ñuy laaj nit mu ngi dox de baax na juróom-ñaaral ba ci jigéen ci këram mooy defar aw ñam defar ndox defar ñam xam nga am na ñoo xam ne jàpp nañ ne togg moom na bax na ñor rek am na ñoo xam ne ñu defe togg nabax bax na ñor léegi li ngay lekk bu dee nogay da ngay regg waaye doo suur togguk nogay da ngay regg waaye doo suur lan mooy regg mooy di fees lan moy sour moy lek lu tuti lu am vitamine saw yaram ko nga no nogay nak tok du togi non dedet yalla nako yalla yeureum <laughs> waye ci jigen ñi tam bu len def ni ñepp mëna a togg de ma wax leen ko tay fi wa mos na fe yendu keur go xam nak ba legi maa koy wër ci bàkk keur go go mëna togg usine ñaari usine bentali lañ dëkk bis ma ko gisee naa leen woo si xam nga dama damaa dem ndar ñu jëndal ma sippax bu ñor ñoom ndekk dañ koy baxal def ci affaire mhm. def ko ci mbuus di ko jaay ñu jël ma ci mbuus gu mag biñ ma ko joxee maa ngi lox ndax ragal ko ma génn ndar rek booy jub gàndom ne ko ca mooy ko wurr ndax ma féex dama ko ragaloon waaye may dox rek may dox ba te seeg si pax ci bool la ma ci woon la sànni woon laa tase waaleykum salaam akramakumullah jërëjëf alhamdulilah ñu ngi bég ci yéen non sunu conférence bi dañ dafa ala dawme fottosu fottosu leen ah dafa laa dawme y ya quelque chose eh bas et là-bas sant rek hein sant rek tabarkal yalla ñu fekk diwen mbakke okay ma sanni mbuus gi ñew isin bentali ñu andi ceebu jën mu ubbi rek gis ña sanni sama yaram wi daw waaye ma ne Mbàkke ah naa ko ñam ba xam ma gëmm rek Cheikh comme ñi mu ko ma gëmm rek Cheikh waaye ba ma ne ko kuruj laa ne def naa xay naa dugg oto léegi dem seeti ko waaye loolu toggukat mooy def noonu te jigéen ci foyam dañoo bëgg mën a togg sëriñ bi boo demee Dakar di jënd añ xoolal fa tax yee nekk rek. baax. <laughs> jeex na waaye boroom togg yi néexul par benn taxi la ñaari taxi kepp gëmm jël waaye foo seen taxi yëpp gaare raxas ka di ñëw di raxas ah waaw raxas ka di ñëw di raxas boo fa añee añee lu neex xanaa juróom-ñaara ngoog bi ci tegee ci li jigéen ci këram mooy économiser dépense su jë euh, dépense su jëkkëram wala économiser soldu bu jëkkëram ki am jabar lu sab soldu rëy rëy rëy bu sa jabar amul xikma non seulement du ngeen suur du ngeen suur waaye aw des du fi am kenn du jaaxle song dara luñ denc fi ne am na góor ñoo xam ne mënuñoo denc fukki dërëm te kat ñi nga am solde bu baax waaye lu ñëw rek ñu def ko mbirum ndaw ko ndaa loolu taxul nit di liggéey da daan liggéey am ndékki am añ am reer fay ndox fay courant fay téléphone desas weccet ba ku jaaxle ci guddi gi ba nga dem ñu mën la caa jox paas ah nga mën dem waaye léegi daanaka loolu amatut lépp da caa yem kepp képp képp lu ko waral jéeg bi ayut kawar yooyu jigéen ñi mbàkke cheveux naturel kawar yi jigéen ñi sarax seen yàlla ja nga gis jigéen ju bari kawar shérif daal di jël kawar ga dem ca kanisa ba ne kawar yi sarax naa ko sun yàlla ji toog mu fay bari nag rek di bari ba oto yi mbalit yi di ko jël di ko tuuri jenn waaye gis ko ne lii ku ko yóbbu Afrique ñu jënd ko daal wut fukkinte juróom ñu koy baxalal ñu koy baxalal kawar ya di ko peñe ba mu rafet mu commencé indi indi Afrique benn paquet bi quatre cent mille benn paquet bi quatre cent mille te ñaar quatre paquet boo moytul moo lay doy bopp bi bu bu dee yu soq soqal yooyu <laughs> sëriñ Suwaay bi nag nee la ku leen romb ñu koy defante nga ne salaamaaleykum yow sa buntu wërsëg tëj na ma ne ko nun leenu rey asbuna laa wa niamal wakil ci cheveux naturel kii dafa toog ñu koy defal ci bopp bi kee toog di ko def mu ne ñaar ñi koy def ngay leen asalaamualeykum sa buntu sa buntu wërsëg ñu ne ko karaj yow mi nuyoo rek boo waxuma ñoom ñi def de yow mi nuyoo rek jigéen dañ koy waajal ba buy jóg mu xam li ko tax a jóg mu xam li koy xaar fuñ koy waajal ci jàngal ko jigéen ñi njàng mi de léegi néew na lool xanaa jàng luy joxe xaalis loolu de mokk na waaw waaw ak jàng kaset boo dégg ci ci musique mokkal ko sëñ Ablaye Seck dee ngi nii waaye fi ne ku laajoon jigéen ñi ñetti kasetam bu ñu waxee benn du ñaareel waaye caay boo laajoon bu ndongo la bi mu mujj way xam nañ ko ba mu njëkk way xam nañ ko ba mu woyoon ca France xam nañ ko ak ba ca dëkk sàngam te kat waxuma la xam de dañ koy tari dégg naa ci ku koy woyal jëkkëram ba jëkkër moom lay wax mu toj nopp ba day way ba jëkkër ji ñëw rek toj nopp ba jàpp na da koy gaaruwaale kon dañ koy jàngal éduquer ko former ko orienté ko ne ko kaay dem sa néegu sëy mbàkke loolu tax dañ daan muur jigéen tiim kook ñaari baat ak ñett yaa ngi dem sa kër jëkkër nekkal suufam mu nekk sa asamaan yaa ngi dem sa kër jëkkër xamal li bàyyi mbaxana ci bopp yaa ngi dem sa kër jëkkër xamal li bàyyi dàll ci suuf tànk Hmm? yaa ngi dem sa kër jëkkër bu mer mukk ngay défilé bu mer mukk ngay defile bu mu kontaan mukk nga ni somm ah booy bokk moom di lekk bul jóg te suur te fexeel ba xam feem yi nga xam ne mooy daaneel góor mbokk mi nee na naa ko joxaat maa ngi woon ci jigéen ju war a def lii dañ koy waajal jàngal ko yar ko forme ko waaye joxoñ ko buy dem kër jëkkëram ñu wax ko la muy wuti ko ci barma dañ koo mas ci ak waral muy ñëw bay jub kër gi dégg kii yeb seet bi naan ko ba demee neel moor xujja nawleem lañ ko jox bu xiif bu mu rafle bu mu mar bu mu tëdd biti ko ci baat ma dëpp ba ca la saa góor ga ne ko man damay waral sama doom yëgal la ko ñëwoo mu ne ko ñëw naa bi may jub seet bi laa dégg ka ko doon yeb di ko tas ma far dëpp mu ne ko tas mu ne ko waaw jigéen kenn du ko yeb naan ko sab nawle ngay fekki nee nag loolu la ko taxoon a dëpp bokk na ci war jigéen suñ mbàkkee bu fekkee bëgg naa def yii day teel a sëy xam naa pénc moom ku koy wax daañu la est-ce que <laughs> ndax buñ ngéntee ba ca ngoon sa ñu may la xale yëpp ko dem am nañ jëkkër ñii nii les bébés la <laughs> waaw ku ci màgg boo nubul kañ la may nu seetal la leneen waaye toog fii te amoo jëkkër moom penc moom dégg naa mu fi léeg jeex na tàkk yombal ko lool laay si di moxtaar <laughs> baax na di waaye fi ne penc mi ñu naan mariage précoce luy mariage précoce ñu ne xale buñ teel a maye mu mbàkkee tee ma laajal sama laaj ba kan moo ci mas a gis pël bu fay pël bu fay sëriñ bi sëriñ baara pël bu fay du am parce que pël bu pël du àgg mukk ci fukki at ak juróom ñu koy maye pël bi mu am juróom benn at lañ koy maye wala juróom ñaari at laaj ko pël yi ko noon de ko noon kaay gis nga teel a dugg néegu sëy dafa baax ci jigéen day tax mu xam lan mooy sëy day tax mu xam mu tax xolam toj te kuñ ko may sëñ Mbàkke muy ngone su ndaw ni gone yii yaa koy yar jox sa yaay mu yar te yar bi ko sa yaay di yar loolu ci formation la nekk am déet waaw formation ba muy def sa yaay ba mën a ñëw sa néeg loolu la sëy yi manqué léegi ndaw si ñuy maye day am fanweeri at mbaa ko jege góor gi ñu koy may mage ko tuuti nga maye ko mu ne la duma sëy kër goxo fooy dem mu ne appartement léegi ngay wër dëkk bi di wut appartement deux cent cinquante mille te sa solde mi ngi toll ci deux cent mille boo fay appartement bi deux cent cinquante mille da ngeen cee mën a dund te mu ne la du dugg waañ man baaxal nen rek laa man jabar ju lu dugg waañ Mbàkke baxal nen la man waxuma la nen buñ toj ci nuñ ko tuddee te buñ ko tojee niñ koy omelette omelette mënu ko baxal ko la man soxna Jaw kooku ñëw ci kër gi ne ci apartement te wax naa appartement <laughs> ma waxati ko bu fa xale yi toogee jëkkër ak jabar dañuy ubbi waxtaan bu débat bi jeexee soxna cuuna ñu def hors ñaari nit débat bi day gaaw a jeex xam nga luy débat bi bilaay maa la bëgg maa la raw yaay sama amoore moi je t'aime moi aussi loolooy débat bi kat waaye débat jeexee xam nga lu cee tege mbàkk ku ne moon yaa may takk ma weddi ko móor xuj génn na ma ñaari at paate génn ma at ak genn wàll nuuru génn na ma ñaari ñaari weer léegi yooyu ngay lim naan li la doon génne seetaan naan sa jëkkër fuñ daan dem dara de fayu na man mi de efa la dan genné légui nak problème amna ci kër du leen juboo mukk da nga dan tak jabar indi ko sa kër yaay mu def stage di jang togg di jang tontu di jang taaj di jàng di jang togg di jàng tontu di jang taaj togg dañ koy memdem même dem même dem marché dañ koy jang so laajee soxna yi bo amé dom ju ndaw bu dépense bu doyul doo ko mu dem yaay demal sa bop laaj ko jigen ni ya koy meuna a motax boy doora booy door jabar ak yoy da ngay neex deret <laughs> di jox di tek dépense ci sa loxol yaay muy régler waye boko tege sa lox <laughs> laajal gaay rek balaa am expérience rek la kon nag mu jàng togg ba mokkal ko mu des nag mu jàng taaj taaj mooy su ma sottelee nan laay wooxee nit ñi ñu ñëw ndékki mbaa ñu añ mbaa ñu reer xam nga boo ñëwee fekk ñëpp toog nga ne kaay leen lekk kuy ñëw kaay leen lekk kuñ jippi lañ koy wax am de walla mereel kaay leen lekkati loolu dañ koy jàng am na ñoo xam ne buñ toggee ba sottal buñ la wooxee nga am appétit waaye am na ko bu lay wooree ngay suur kaay leen lekk parce que tubaab tubaab mënut a wax kaay leen ñu añ tubaab li ñu wax mooy kaay leen lekk am de viens viens manger nu la ko waxee de tubaab loolu la xam léegi nag bu ko waxee adduna tukki léegi nag boo ko bëggee tekk ci waxu waxu tubaab bi nga teg ko ci olof lay wax kaay leen lekk ñépp suur lu am solo la danga daan togg ba noppi daan ne bisimilah rek ngay wax wala kaay leen ñu añ walla añ bi pare na lu loolu lañ daan wax waaye kaay leen lekk walla kaay leen lekkati man de moo ko déggee suur ak yow de waaw waaw kay leen lekati te xale yi deggul wolof lol dañ koy wax de mu dess nak tontu man nga togg man nga taaj jangal tontu tontu moy bu la sa jëkkër waxee ba nopi baat yi nga koy jox waaw salaamaaleykum maaleykum salaam na ngeen def mba añ bi paré na nga taggal koy mamam tag bàjjanam tagg nijaayam ba noppi tagg ko nag ne ko añ baa ngi nii ah waaw ni eh ma man jéematuñ ko sax léegi am kay bu la faañ bi fekkut ba muytul doo añ bu dee kuy liggéey ngay liggéey sax bu wàccee bu agsi def ay maa ko sonn pour bu ko sant dara te jigéen daf doon xëntewoo jox jëkkëram mu lekk ba suur mu taajal ko mu to mu tegal ko lëwal bu woyof bu bari naana te suukar sa yem bay feeñ bi ngay togg nag nga fab sa ñaar tànk yi tegale leen mu jëm nele ndeysaan baraad bi féete la nii jëkkër féete nii la fuural ba mu yàgg nga ne ko nii bët delloo siwaar ah benn regard benn regard boo xam ne yaa quelque chose maa la ko wax yàlla na yàlla dimbali kon teel a daa baax ci jigéen di am ay doom du ci am problème yéex a sëy day tax ay organe am bañ buy am doom bu ñu ko jàppale du ko am te su ko amee ña koy jàppale léeg la ñu santaas ko ne ko wutali pexe na ko wutali pexe ndax am nga doom ni boo ko amaatee nangam nangam te loolu nag baaxul ci moom yàlla ñu bokk fekkee déwén bu déwénee bu ñuy ñëw yàlla na ñëpp ñëw jigéen ñi yéen ñii sol yi niroo lalal naa leen waaw parce que ni ngeen def nii macha allah gis naa sax ngeen defaale ci góor yi ba niroo waale yàlla na yàlla def ni seen yére yi niroo nirooyee seen xol yi niroo ko noonu waaye boo ko seen xol yi niroo noonu yàlla na xalaat yi encore niroo noonu waxoon naa la daaw soxna Njaba Anduk jigen mok anduk ganarak anduk ànd ak gone ñoo yem benn yomb ci ganaar ak jigéen ak gone mbàkke dekk yépp ko ñu wolé motax seenu seenub ànd yombul bu ngeen andé fukki wér ak ñaar ñew fekk leen ni ñew fekk mbolo mi yok ñew fekk mbolo mi wat ya quelque chose ya quelque chose de moy ñi jitu nañ nangoo jitu ña cee topp nañ nangoo toppe te xam ni liggéeyal sunu borom la lu ci waaye def lu ne sunu borom day xam ne diw moo ci defoon nanga mu ne ko nga ci mi ngi fi ne def sandi jam rak tontine yooyu ku joxe mille booy tegg bokkut ak ku joxe deux am déet kon nag yëf yi lay noonu lay nuyoo kon lay ñaanal tawfiix yàlla ñu bokk fekk déwén bu déwén yàlla na ñëpp sëñ sëñ bi imaam Modou Mamoun noo ngi lay jox cër ci sam pénc la ñu nekk di wax ci sa contrôle di ñaan borom bi lu jub ci wax ji mooma lu jubut du moom man mii nuyul ñu alxalifa nuyul ñu njaboot gi nuyul ñu ñëpp man day diplôme bi ma mën njëkk a am ci li may def nii pénc mooma lañ ma ko joxe woon maa la ko wax de daayru zaahirin ñoom ma foo jox ma ko ma nga ma ma nga ma defar ba mu ne seggit na sogg ndeysaan yàlla yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir ci def ci sunuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu